seen revue de presse. ñu di ci ànd ak El Hadj Ahmed Aïdara. bisimilah. lan moo tax kon ba nit ñi di taal seen bopp léegi allahu akbar termine yéene kay ne ñi nga xam ni kon ñoo doon liggéeyee ca Sénat ba jamonoy Abdou Diouf ah ñoom daal nee nañu boo sàgganee danañu taal seen bopp allahu akbar Abdou Aziz Fall moo yor seen kaddu nee na ñun daal pare nañu ngir lépp laa la wax ay grève de la faim taal suñu bopp safara sax pare nañu ko bu ko jaree waaw waaw parce que nag ñun la ñu bëggoon daal mooy jaarale lépp ci yoon waaye sëñ bi Fall ne loo ëpp nag tuuru trop c'est trop mat na kon fukki atu yàllaa ngi nii ñuy sàkku daal suñu ak ak ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyee corona bi am na ci ñoo xam ne kon ñàkk nañ seen bakkan kon faatu nañu ndax mititu xol gese moo leen yóbbu bind nañu lettre président Macky Sall bind nañu lettre président assemblée nationale ba ci Abdoulaye Wade ci boppam laa lay wax nii xoolal bind nañu ko lettre waaye ba ni ñuy addoo fratal di xibeen dara boo sàgganee nag danañu taal suñu bopp ki doon taal boppam démb kay Safiyatu Njaay la nga maa la wax lii direct info ne ca kon la ko doon boppam laa ilaha la sabab lu ni mel nag mooy ndaw si kat nee na daa jënd kon ab terrain ca Anne Marie Sigué waaw daal di dem nag lépp kon banque ba CBAO lu ci tolloo fukki millions ak ñeent yu teg téeméeri junne ak ñeent fukk ko quatorze millions sept bi ne ko ci fanweeri weer ak juróom-benn kon nga ko war fay ñu dem ba ci biir banque bi ne ko dama juum warta nekk fanweeri weer ak juróom-benn de waaye ci fukki weer ak ñaar maanaam atu yàlla kese nga ko war a fay bi nar a nangu këram kër gee di CCBM ah nee ku leen ko leen day daa fas yéene kon porte plainte journal l'observateur i maa la wax li lée parce que kat daa bind ne CCBM dàq na lu ci tolloog ñaari téeméer ci ay liggéeykatam ndax ay perte yoo xam ni kon société ba ma ngi koy perte Serigne Mboup nag jàpp na ni kàddu yoo jaay ay fen la ay sos la i day rafet waay ah Serigne Mboup ne ah kay li l'observateur wax du dëgg CCBM daa dajale CCBM industrie CCBM automobile Essas auto Sotran boole lépp def ko benn defaraat googee nag ñu nekk la ko tax a jug daal mooy yokkute mbir mi jur dara mën a bokk ci entreprise yi gën a mag loolu daal tax na lu ci tolloog ñaar fukk ak ñaar ci ay liggéeykat fukk ak juróom-ñaar yaa ay sénégalais lañ juróom ya ay chinois lañu seen contrat jeex ñuy dem te ñoom ñoo ñee yëkkati nañu lu ci tolloog ñetti weeru salaire jox leen ko avocat groupe di maître El Hadj Diouf daal li mu wax nii ay kàcc la ay mensonge la waxuñu dëgg te danañu porter plainte journaliste bi nga xam ni kon moo bind lëf la di Arona Fall ak l'observateur ca boppam maître El Hadj Diouf yamu ca ndaxte nee na lof si ci boppam dañuy kàcc laa la wax maa ko wax te seen kàcc googee du dem fenn ça ne passera pas laas ne te nga xam ni kon maanaam moo bind mbir ma Arona Fall ak journal ba ca boppam lañ leen di yóbbee ca yoon nag mooy ay mbirum sosalaate diffamation wax lu dul dëgg jéem a yàqal CCBM yàq deru CCBM Serigne Mbuub ci boppam nee na ma ne kàddu yuuxu waxuma ko man daal jékki-jékki na daal di jot kon benn message ci sama portable waa ma man la Arona Fall bu l'Observateur bon euh, daanaka ñaari semaine a ngi nii may jéem a jokkoo ak yow ah mais dara damaa am xibaar bu ma bind ci CCBM ñang ñang ñang patati patata man tamit Serigne Boub ma ne ko bindal waaye looy bind daal bu mu nekk ay sos Modou Diagne Fada jàpp na ñu jiite réew dañuy sos i ubbil enquête yéene kaay yi Modou Diagne Fada ne dama ne seen bu naree neex bu ba xeexeeñ man leer na ma ne Macky Sall ci boppam kon mënta jiite fi def dara jeex man fa daamaa ko wax parce que Macky Sall ci boppam dañ koo jël en otage ndar képp ko yow am réew moo xam ne dogal yaa ngay jóge palais yeneen dogal yi di jógee ci parti bi yeneen dogal yi di jógee Benno Bokk Yaakaar yeneen dogal yi di jógee assemblée nationale réew nekkul ne noo ne koy yoree moo du jaañ fa daa yemu ca ndaxte nee na lii daal moo tax ma ne Macky Sall mii ay problème la am ngir saafara kon jafe-jafe askan wi ni moo mais moo trois cent francs danañu wàññi itam suukar gi waaye tey ji France dal di xidéen suukar si nga xam ne la ñu indi téeméer ak juróom benn fukk la kilo bi di jar huit cent francs suukaru bi téeméer ak ñaar fukk six cent francs lay jar ceeb bi riz parfumé lu ëpp téeméeri dërëm essence baa ngi nii ak gaz bi facture courant yaa ngi nii nit ñaa ngi dee Macky Sall ba mu dikkee ak léegi daanaka chômage gi sax la gën a jàppale ole mu wutal xale yi liggéey ci juróom le populaire nee na barça wala balzaq ga mbëkk mi dellu seeti na de marte taali laa ilaha illa allah xale ya jëlate nañ de marte taali laa ilaha illa te bi nag ay étranger ñoo xam ne duñu ay sénégalais ñooy yóbbu waate xam nga fan la di déparé ah ca géeju Mauritanie yee ca ndar géej ak ci géeju Kayaar ji laa ilaha illa allah te jamono joo jee bu Parcelles Assainies yëngu ma ngay xar de réew mi quotidien Mbaye Ndiaye ministre de l'intérieur la ci nan la Ousmane Tanor Dieng di liggéey yée ngir pees koo gée daal di kon faatu dee ñiy bëgg a dee kay ñooy waa primature fa premier ministre ba ne Le Quotidien yéen a ne Macky Sall day fi mu nekk ni le ah tax na ba Abdoul Mbaye sonn na lool waa ji le sonn na lool koppar ga nga xam ne la ñu jaglelee woon primature goo gée ngir mu cey dund ak di ca liggéey waaw wàññi nañ ko de président daal day jékki-jékki rek dañax Abdoul Mbaye ay millions une dizaine de jàpp geeg ndimbal gi aide secours budget wu kër goo juróom benn téeméer ci ñeenti téeméeri million yàpp Souleymane Ndéné Ndiaye jot na koo jëfandikoo mooyow jafe-jafe juddu na fa fi jafe-jafe nar a juddu kay ah mooy saar Sud Quotidien ne société africaine de raffinage waaw lii raam teg nag wala jëm de te bu fa amee kër fa gaaw a génn de kon dee man ca làmb ja Ipo Ngari ca ay ayca ay ayca ci suñu lamb ne Modou Lo mënta nekk roi des arènes i roi des arènes bi Balla Gaye 2 ma ngay waajalaat Casamance am nga dee ngir jàmm kon dellu siwaat fa yéene kaay gi ne Balla Gaye 2 moo mais Lac de Guiers numéro 2 moo koy gunge ak Ama Baldé ak Sa Thiès ak Elton ak yeneen sax ci ay surprise Balla Gaye numéro 2 ci tribune yéene kaay woo na mbër yëpp ngir ñu jàppale kon équipe nationale football bi lee ci wàllum xar fa foofa di ay mbirum xon ay xool leen équipe bi libération yéene kaay ne ban équipe lañ war a teg suñu seen diggante ak Côte d'Ivoire coow dana ca am de débat dana ca am de fi débat am kay mooy mbaraan gi ci réew mi ca ñaari far jàpp ñett le pays au quotidien ne tabaski baa ngi ñëw xale yi fi mu nekk nii door nañ opération mbaraan goo xam ne maara day taali dajale ay far ah xoolal ma soxna si Mami Diallo mi ngi ak ñaari doom sey na ba tas nee na man daal du ma fi nekk di dajale ay far ñaar daal laa yor benn hôtelier ak benn joueur professionnel mooy bu tabaski bi see ñu yónnee ma xaalis liggéey ci ay mbirum caq ci fer ci laay yëngu eh way Samba léeg góor ñaay njax ah waaw waaw parce que góor ñi xam nañu xel ne jigéen ñii nobuñu kenn bëgguñu kenn la ñu bëgg def daal mooy diggante dëkkandoo ca biir koñ ba defante bi mel ni tulleeg male xëppante asib ba lu sa morom sañse nga sañse lu ko raw dajale ay far point final <laughs> la ilaha illallah tey lii man ay dara karaaraa fu ñuy xëppante ay asib duma ma ko fekkee fu ñuy rëddante ay lanset du ma ko fekkee waaja ni góor bu ñu la dul ay ayloo ci ay ngay dëkk ñaar jàpp ñeent waaw waaw waaye ana jigéen ak ñu lay ay ay lo ngay dajale ay far wala ngay dajale ay jëkkër ah sa bakkan na ko dul fekke te loolu